jullit ñu ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa ñu ngi wax mbokki jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bii ñu tuddee qantaratul murid muy le pont du savoir pour les élèves les étudiants et les chercheurs mu wax ne alfaslu fi bidayati sabqi wa fi miqdaarihi tartibuhu kadaya fi wabtadi yowma alarbua id qiila maa yubtadaa bihi xawa takmila qaala rasulullahi ma min sheyi budia yowmu alarbua sani illaa waqad tamma fada dalilu fi libtidaai yowmihi jamilu kadaka yafcalu abu xanifa yarwi bida raawiyatun munifa an sheykhihi rida qawaami ddiini dil cilmi wassalaaxi wattabyiini wa kaana lustaadu alali alhamdaani alayhi rahmatun maa ridwaani yuqifu kulla camalin min camali alxuyuuri yowma alarbaa alajali liannahu xuliqa minhu nuuru liannahu xuliqa minhu nuuru du libtidaa bi yowmihi mansuuru wa sabqu xarfun wa kuli takraaru alfun wa hakada rawa alaxyaaru wa huwa yowmu naxsi lilfujuuri kaana yowmu saadi lilabraari qadri sabqa fi libtidaai maa dabtahu sahlun li libtidaai bilcawdi marratayni thumma arrifqu fallahu yahdina sabila alxaqi wa kalimatun yaziidu kulla yawmi yaa saaxiba ittabic tariiqa alqawmi xataa idaa kathura kaana yumkinu قارئ الضبط والأمر هين أما إذا طال لذي ابتداء يأتيه كلفة لدى انتهاء وينبغي ابتداء بشيء أقربا لفهمه وعلم قال تصبا وسبق بعض الضبط والإعادة تعليقه فقل به الإفادة وينبغي اجتهاد في الفهم عن أستاذه وعن تأمل حسن لا ينبغي قطب الذي لا يفهمه fa daaka murisun kalaalan yasamu wa mudhimu alfitnati walmudayacu awqaatahu wa daaka amrun yubshacu wa kathratu altakraari waltafakkuri subhaana xaaliqi alwara almuqaddiri biqillati sabqi maca altakraari yaati laka alfahmu can alqahaari wa inna xifda taalibin xarfayni afdalu min simaacihi waqrayni wa fahmuhu xarfayni qul afdalu min xifdin li waqrayni bila xulfin zukin wala tuhaawin ya axi bilfahmi wa du tahaawuni bihi fi dammi maa lam yakun mujtahidan muctaada dalika laysa yaxtawi almuraada laa budda liltaalibi min mudaakara maca almutaaraxati walmunaadara wala wa daaka bilinsaafi wattaamuli matta anni laa maa tasalsuli waaw sëriñ bi radiallahu anhu maam cheikh alxaaj malik radiallahu anhu tey mu ngi jàngale maanaam nit ku bëgg a jàng ban bés ngay tàmbali maanaam ban bés ngay dal yow xale bi bëgg a jàng ban bés nga war a dal mu ne alfaslu teqale fi bidaayati sabqi ci maanaam tàmbalik njàng wa fi miqdaarihi ak kem maanaam li nga war a jàng tartibuhu noo koy organiser kaza yëfi ndax ku ne xam-xam ku ñëwoon tey ci bibliothèque yi nga gis ay centaine de livre nekk ca nga ne aka neexoon ma xam li waaye am na noo doon agencer sa programme boo yàkkamtiwul mën ngaa dem a dem ba bala ngaa dee lépp mën nga koo xam waaye mënooñu koo xam ci fukki fan moo tax mu ne wabtadi na tàmbalee yow mi dal daara ja yowmul arbua bésu mercredi boo yóbbu sa doom muy jàngi ji yóbbu ko bésu àllarba ñu ñëpp defe naa ci lañ dal bésu àllarba nang ci dal is qiila ndax dañoo wax ne maa yabda'u maa yabtada'u lépp loo xam ne tàmbali nañ bihi ci bésu àllarba xawaa dina am takmila ak mat lépp loo tàmbalee ci bésu àllarba ba ci sa kër goo doon tabax ba ci lépp bépp projet daal boo am dañ wax ne boo ko tàmbalee bésu mercredi loolu dafay yegg te dafay am ak mat euh, ndax qaala nee na rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi wax ne ne ma min shay'in amul dara loo xam ne bu di a tàmbalee nañ ko yowmul arbaa bésu àllarba assani bu leer bii illaa waqat tamma dul loolu dina mat faza loolu moo tax dalilu tegtal la filibtidaa ci yow bi bëgg a tàmbali nanga tàmbalee yow mi yi ci bésam boobu ndax loolu jamilu lu rafet la jéggi na sax xam-xam rek waaye lépp loo bëgg daal tàmbali projet boo amee possibilité tàmbali ko bésu mercredi moo gën kazaaka naka noonu sax pour tàmbali lépp looy def ci mercredi yafalu moom la daan def abu xanifa abu xanifa nga xam ne borom ngir la yar wi soloona bidaa ci loolu riwaayatun munifa maam riwaaya gu kawe muy marfuuxa na yonent bi waxoon na ne lépp luñ tàmbalee bésu àllarba loolu dafay yegg ah, nga gis kon ouverture de classe yi nii bu ñu mënoon di ko def bésu mercredi xanaa ñu ngi naan ubbi tey jàng tey waaye buñ ko mënoon def bésu mercredi dafay gën ndax abu xanifa moo nettali riwaayé boobu jële ko an cheikhihi rida muy qawaamu diini zil ilmi wa salaaxi wa tabyiine wa kaana ustaadul ali alhamdaani moom itam alayhi rahmatul ilahi rahmatun maa ridwaani al ustaaz alhamdaani imaamul hamdaani ñi jàng miin nañ ko moom yuqifu dafa daan amal kulla amalin bépp jëf rek min amalil xuyóori ci jëf yu baax yi yowmul arbaa la ka daan defe maanaam même bu dul dal daara ja sax mais lépp moom lépp lu mu daan def rek ci lu baax moom dafa préféré maanaam ta tàmbali ko bésu bésu àllarba alladi ajal nga xam ne mu bés bu màgg la war ngaa laaj lan moo tax loolu bés mercredi ni mu ne nekkee bés noonu la mardi nekkee bés noonu la lundi nekkee bés mu ne déedéet dafa am lu tax ndax yàlla itam moo wax ne wala kat xalaat na sama wal ardi wa ma baynahuma fii ay ayyaamin ma bind asamaan ak suuf ak li na ci diggante bi ci juróom benni fan juróom benni fan yooyu nag da ko hiérarchiser ñaari bés yi mu bind ci asamaan ñaari bés yi ci top mu bind ci suuf ak environnement bi ci nekk mais bi mu accès ba ci bésu mercredi ci ci la bind la lumière la lumière euh, ci lañ ko bind ci bésu mercredi moo tax muy bésu lumière loo ci tàmbali rek yàlla mën na ko barkeel moo tax mu ne li annahu ngir bésu àllarba xuliqa minhu nuuru ci lañ bind leer zulub ci daa ci lañ ko kon képp kuy tàmbali bi yow mi ci bés boobu man suuru faw ñu dimbali la hmm? xam nga léeg ngay tàmbali dara ne yàlla na ko yàlla leeral hmm? yàlla na yàlla leeral lépp moo tax même mag ñi bu ñu masaana am ku feebar ba bañ ne dafay hospitalisé ñoom dañuy préféré bàyyi ba mercredi ñu yóbbu ko hôpital koo xam ne dafa war a def opération chirurgicale nañ naan nañu bàyyi ba mercredi ñu def ko nangam et cetera loolu am na réalité yooyu ñu ko ñu koy dund ba tey jii ndax daal ci gàttal luñ ci tàmbali daal yàlla mën na koo yeggale ci boo ko gëmee wa sabqu léegi nag booy jàng euh, nan ngay agencé ni ngay jànge mu ne wa sabqu Euh, raw rawante daal xarfun jàppal ne xaraf la wa kulit takraaru waaye euh, répétition alfun junni baat la wa hakaza rawal axyaaru maanaam dafa bëgg a wax ne boo jëlee sa leçon ba pare leçon bi moom jàng nga ko benn yoon da ngay toog ñu jaaral la ci waxal ba siin mimara maanaam nit moom pour ñu sala faw da ngay toog ñu jaar ci benn yoon euh, leçon géographie nga leçon histoire séjour yaa xam loo bëgg daal boo ko jàngee ba pare loolu benn yoon lañ la koy jàngal mais yow nag boo demee na nga ko takraar maanaam na nga koy répété mille fois defe naa loo loo répété mille fois mokkal nga moo tax mag ñi bu ñu daan jàng dara seen kurus la ñuy yor euh, yor kurus gi bot seeni loxo di jaabante nga foog ne day weer da fekk bindam lay lay répété fu mu répété benn rek teg kurusam maanaam xëcc benn per xam nga temps bi ñuy def ci werd buñ ko woon def ci répété aay yi léegi kon ñu mokkal ko waaye toog rek naan subhanallah jëme bu kenn xamul te heure boo fekk na nga mënoon fi mokkal junniy aay ci diggante bi loolu tabaarakallah mu ne wa huwa yawmu naxsi lil fujuri mu mel ni euh, di nga jaxle tey parce que am na ñoo xam ne nee nañu bésu ba bésu ñoom ñoom c'est pas préférable ci ñoom am na ñoo xam ne aada la bisu ba kenn du ci fóot hmm? bisu àllarba doo ci def lii bisu àllarba doo ci def lii Seydi Hadj Maalik ne effectivement dégg naa version boobu euh, mu ne waxuwa bés boobu yow mu nax si bésu mbas la lil fujuri ci saay-saay yi waaw mais bu dee kay ci lañ bind lumière ñi dund ci obscurité bés bi dina baax ci ñoom ah ñi am ay rab ak i ak ay esprit hmm? ak ay jalan ñooñu bés boobu dina leen arrangé du leen arrangé kon li arrangé ñii moom mooy dérangé ñële moo tax bés wu leer la waaye itam ñii dunde lëndëm bés wu mbas la ci ñoom ak euh, euh, musiba moo tax fa kaana yow mu saadi waaye mu nekk bésu bonheur lil abraari ci ñu baax wa qaddiri sabqa fi libtidaay ma dabtuhu sahlun booy buñ lay bind nag li ñuy wax sa euh, nanga nga booy tàmbali maa dabtuhu loo xam ne bind ko sëhlun dina yomba li ibtidaay ci booy tàmbali xam nga nit koo xam ne tey ci àllarba ji la dem pour ñu bindal ko ci alwam moom mu toog ñu bindal ko ba alwa bi fees bés ba dina ko mokkal kooku day bàyyi jàng sax ah bari na koo gis mu commencé jàng xëy xëy bàyyi njàng ma programme biñ ko teg ci début bi dafa metti nit buy jàng da nga ko première leçon yi muy jàng da koy yombal yombal ba mu a ah li koy jafewul fekkal a jafe du du li yëpp dana jàng 30 ans te du jeexal waaye boo mag ñi boo masaan ñëw dañ lay bindal baa siin mi mara loolu bu ñu la ko bindalee 9 heures ne boo mokalee rek wàccal xam nga balaa 8 heures demi wala 10 heures nga mokal nga tëb di dal ne wàcce naa lii kay jafewul fekk na. fekkee ne di nga jàng ba dee doo pare euh, mu ne nag buñ la bindalee loolu bil awdi nga répété ko maratay ni ñaari yoon mais nag summa rifqu nga def ndànk euh, di ci jaar ndànk-ndànk wallahu yahdina sabila alxaqi yow xale bi war a jàng sa cahier de leçon itam sa maam Cheikh Alhaj Malik mu ngi lay orienté nan nga war a jànge mu ne wa kilmatun yazidu kulla yawmin yaa saaxi ittabi tariqa al qawmi nag boo jëlee tuuti tey ñetti lettre nga jël ba siin mimara nee na bu subaa da yokk beneen liif laam-laam ha saxir ha nga yokk nga benn lettre léegi noo gën a gis nga moo gën a gudd allah noonu ngay demee di yokk par ndànk di yokk par ndànk bu ko defee xel mi di ko nangu ndànk-ndànk moo tax mu ne wa kilmatun nga yokk baat yazidu kulla yow mi yaa saaxib yaa saaxib yi ittabi na nga topp tariqal qawmi mbooloom gaay yi waaye boo bëggee nit ki dal tey nga jàngal ko limu mu war a jàng yëpp ci at mi bindal ko ko nanka noonu del jàng rek bari na koo xam ne jawharatul kamal ba tey mënu ko mokkal ndax dafa dañ ko jox texte bi rek te kenn du ko jànge ci ay texte da ngay ñëw ñu bindal la ci ñetti baat ñeent nga dem bu loolu rataxee nga dellu sewaat ñu bindal la ñeenti baat ñeenti baat nga dem bu rataxee nga dellu sewaat boo koy jeexal doo ko yëg xata ida kasura léegi nag loolu ngay dolli bés par bés baat par baat bu demee ba bari kaana yumkinu dina jàppandi li xaari ci ay aji jàng ji dabtu nga mën koo takk wal amru ndax mbir mi xëyinu lu yomb la maanaam bu dee chaque jour ñu yokkal la ci benn baat boole nga boole kook la nga jëkkoon jàng di ko def di ko def ba bu dee ab saar la bu dee aaya la ba yëpp jeex est-ce que léegi du la yomb nga déplacé waat maanaam nga dem ca kaw di ko jàngaat ba ba ba muy jeex ayatul kursi yi ba doon def chaque jour ñu jàngal la ci ñaari baat di ko def nga koy booleeg la jiitu di ko def buy jeex dina fekk nga man di ko baamu ba nga koy mokkal euh, mais boo ko bëggee sànjaafu noonu rek effectivement ci découragement rek ngay mujj mu ne amma ida taala li ibtidaai yaatihi kulfatun la dan dantihaai waaye bu fekkee euh, liy olof di wax naan tibb bu rëy rey na borom waaye dund la ci bëggoon nee na bu fekkee danga nga tax nga jël bind bu bari début bi mën nga koy jàng nii waaye boo demee ba boo demee ba toll ci mémorisation bi ah boo boo mokkalee kaw gi itam suuf gi doo ko mën a mokkal du dëgg bari na koo xam ne ni aaya mën na ko song waaye bu demee ba ci digg bu commencé naan euh, diggag parce que début bi mën na tàmbali neex ratax lool mais fin ba du dem parce que li nga jël moo bari ñoo tax mu ne amma isa taala bu guddee lisibtidaay ci bi ngay tàmbali ya ci dina ñëw waaye kulfatun coono lay mujj doon la doon tihaay booy jeexal ndax du fekkati nga mokkal loolu ndax nit ku ne xelam dafa am fu mën a yem wayan bari ibtidaa bi cheyin aqraba li fahmihi wa ilma qaala tusiba tusiba boo bëggee jàng pour parcuriser li ngay jàng si xaj maay nee na ce qui est préférable mooy nga tàmbalee li gën a jege ci sa dégg maanaam li nga gën a comprendre ab leçon est-ce que boo ko comprendrewul di nga ko mën a jàng hmm? boo gisee mag ñi bu ñu la daan jàngal dañ lay firil baat yi ba pare lu luñ la firil baat yi ba nga xam ne lii la bëgg a wax ba boo nee zahaba mooy firi dem na léegi yow loolu noonu prix mi day desaale sa bopp ba nga xam ne pour nga mokkal ko dafay yomb ki soo boo gisee suuratu Yuusuf mokkal ko yomb parce que histoire buñ nettali la boo xasee xam histoire bi yow xaw nga mën a tari saar bi selon ni mu déroulé du dëgg moo tax mu ne wayan baxi jaadu na euh, ibtidaa tàmbali bi shay in ci dara aqraba loo xam ne moo gën a jege li fahmi yi ci déggam nga xam ne comprendre na ko waaye nga mokkal maqaala la mu wax ba ndax li nga xas mokkal maanaam li nga xas xam li muy wax pour mokkal texte bi est-ce que du la du la yomb ah kay tusiba kon nga jàng moo tax mag ñi dañ daan def daara majalis yu baree bari mais catégorie euh, catégorie étudiant yëpp dañ fay toogandoo man daan naa jàngandoo ak ñoo xam ne mat nañ ma maam euh, léegi ñooñu nga xam ne ñoo la raw fuuf booy faral di toog di déglu seen bind teew yow yeggoo fa sax de est-ce que yow bis boo fa yeggee di nga am problème mu dégg comprendre ko déedéet loolu mooy chance toogandoog ñu la raw di jàngandoo bu boobaa dafay yomb pour nga mokkal yow boo ci àggee wa sabqu baada dabti wal iaada taaliquhu fa qul bihi ifaada euh, nit ku nekk dafa am style bi muy jànge nit ku nekk dafa am style bi muy jànge euh, moom la shaair bi wax ne xifdun euh, wa dabtun baada tafhim al ilmi xifdun kada kada al ulumu rasmul ilmi rasmun qiraatun wa xifdul ilmi dirasatun tafhimu fahumul ilmi maanaam loolu ay dimension la pour yow mi bëgg jàng sëriñ bi moom la lay jàngal ne euh, dañ lay sax maanaam dañ lay bindal sa alwa wala sa kaye wala sa tablette bi nga ame ba nga xam ne lii mooy leçon bi baax na dab ci gannaaw boo ko bindee nag maanaam dañ dañ la koy bindal d'abord ba pare maanaam rës mun bind mooy jiitu demal jëli sa alwa nga bind nangam wala jëlal sa cahier de leçon nga bind nangam est-ce que nit ki li mu bind leçon bi mu bind photographie yow ko ci xelam déjà xaw na koo mokkal ndax li nga xës bind dafay des après sa kii après mais loolu doyul fow professeur bi moo ciy jaarat moo tax bul ne mën naa liir mukk duma ma déglu sëriñ bi wala professeur bi déedéet dégluwaat ko mu jàngat ko ndax loolu moo tudd sirru talqin nit lépp luñ la jàngal du yem ak loo xam xamal sa bopp léegi boobu mooy ñaareel bi wal iaada après nga commencé di ko baamuwaat soo ci paree di ko baamu ba xaw ba mu ratax taaliquhu nga commentaire ko may commencé di ko dégg ne est-ce que lii bëggul wax lii est-ce que lii bëggul wax lii professeur bi di def ak yow partage faqul bihi léegi nag soo paree lan moo ciy tegu al ifaada mooy jariñu comprendre nga yii lignée yi muy juróom yii muy dabt ak sabq ak iaada ak taaliq ak ifaada juróom yi loo ko jàngee est ce que doo ko maîtriser hmm? waaye for benn téere rek gis ci ñaari baatu aaya alquran ñaari xadis kaalawu ne da ngay wër di firi yow léegi aaya yooyu noonu nga jël wala nga dégg ko ci ay son rek jël ko commencé di ko firi waa léegi bis buñ la ci laajee lu concerné aaya yi te yow jotuñu jotoo ko woon jàng kenn commentairul la ko lan ngay tontu ndax yow fa son ba rek nga mën a yem voilà waaw loolu nag son bi dafa am ñu mu mën a jàngal waaye nag baaxis muy chercheur du du doy loo dafay gën a approfondir niveau wa yanbaghi ijtihaaduhu fi lfahmi an ustaadihi aw an ta'ammulin xasan léegi nag boo jàngee gannaaw juróom yi ba ba xam lan na bëgg a jàng léegi nag wayan bari jaadu na boo ñibbee wala nga toog ci classe bi wala daara ji ijtihaaduhu nga farluwaat nga gën a renforcer fil mi ci compréhension mais texte bi en réalité ban relation la am texte ak texte tel ndax mas naa jàng nangam loolu ban relation la am ak bii loolu xam nga loolu professeur du la ko defal yow yaay toogal sa bopp nga defal sa bopp loolu relation bi texte bi am ak ba ko jiitu ak bi topp ci moom ak beneen boo jàngoon ak nangam nga commencé di ci farlu euh, pour am ci gëneenu digg an oustaz yi wëlis sa oustaz soit que oustaz bi ngay defal partage boobu wala bu la jàngalee ba pare nga bàyyi ko mu dem après nag wa anta mulin nga ciy méditer xasan bu rafet gis nga boo watul yow moom man nga ci am compréhension yoo xam ne oustaz ba sax wala sëriñ ba xamee ko noonu moo tax ñun suñ sëriñ buñ a jàngal dara dafa daan bañ laaj bu bari boo nekk lii la lii lii lan la lii lan la mun a dellu leen boo leen delloo ba ñibbi ngeen jël seen temps temps ngeen relire ko man ngeen ci xam sax lu ma xamul te loolu juste encouragement la pour nga nga tàmm di def lecture laa yanbaghi kutubu alladi laa yafhamu fa daaka muurithun kalaalan yes amu te même ka yow itam bul waane rek tax nga dégg ne diw mu ngi jàng téere bi diw mu ngi jàng tabaarakallaahu matière bi yow amoo ci niveau mais bul précipité di ko jàng moo tax mu ne laayan bari jaaduwul kutubul ladi wala kat bul ladi di bind loo xam ne wala di jàng loo xam ne laa yafhamu amoo dimension dégg ko xale boo xam ne nii mu ngi jàng faraidu salaat yi maanaam faratay julli mu bàyyi ko fa ne day jàng al faraid mooy miraas héritage kooku dina dégg li loolu fa zaaka loolu muurisun dafay jur kalaalan ak lompañ nga xam ne yes amu daf koy tayalloo nit booy jàngal loo amul niveau effectivement dangaa lii dafa metti fekk mettiwul ci yow la metti yow yaa amul niveau te gis nga di jàng dimension boo yeggul wa mudhibun dafay deme al fitnati euh, intelligence nit boo yàggee jàngal loo attanul da ngay mujjee day da lay jural manque d'intelligence waa joo xam ne fukki at la am ñu bëgg ko wàcciloo ay saakuy ciment kooku bu ci dëkkee dina gudd fan màggam du baax dundam du baax ay organ euh, organisme dafay gaaw a euh, usé te bootul du gudd fan noonu nag la xel mel li mu tollool rek jàngal ko loolu te is am na sax beneen bu gën a metti nitu yàlla yi mooy jàngaloo mënta comprendre xam nga loolu gaspillage du temps la moo tax mu ne wal mudayiu dafay sànq awqaatuhu ay waxtoom zaaka amrun yubshau lool mbir mu ñaawlu la loolu rafetul bul attardé wu ci loo xam ne mënoo ko comprendre euh, nga nga nekkaat ci di continuer ba faf njàng mi soof la sëriñ bi ba tey di dellu ci style bi ñuy jànge mu ne wa kasratu takraar bari nag répétition wa tafakkur yi ak di ci méditer di ci xalaat dana gaaw a tax a comprendre subhaana xaaliqil waral muqaddir yi tudd naa euh, selluk borom bi nga xam ne moo bind jaam mu ngi mel ni ki toog tey di déglu dars comme son yu mel nii léeg-léeg nga déglu ko une seule fois doo xam kiy jàngale lan lay wax maanaam son bi doo xam lan la bëgg a mais boo tayalool nga réécouter ko beneen yoon li nga ci comprendre ci euh, euh, réécoute bu ñaareel bi doo ko xam sax ci bu njëkk ba boo ko defaatee une troisième fois la même chose boo ko defaatee une quatrième fois dina dem a dem a dem ba boo wattuwul yow man nga cee dégg sax loo xam ne kaka jàngale déggul woon loolu ndax da koy jekku lool ci dégloom moo tax répétition la répétition est pédagogique effectivement loolu moo am moo tax bul ne xool naa nangam xaw ma ko découragé bàyyi déedéet بقلة السبق مع التكرار ياتي لك الفهم عن الغفار nee na booy jël dars jëlal lu yem booleeg di ko répété ku ne xam na ne répétition la ngay répété livre lëmm buñ ne na nga ko répété pour mokkal livre bi defe naa dina jafe de livre boo xamee cinq cent pages nga bëgg a dale ci première lettre bi jëm ci mujjug lettre bi mën na jur sax dix jours ci yow loolu xam nga mën nga ko répété ngir dund te du tax nga mokkal kon jëlal lu yem rek nga jàng loolu ba mokkal ko di ko def ba ba ngay jeexal euh, la nga doon jàng wa inna xifda taalibin xarfayni xam naa sëriñ bi lii muy wax nit ñi épuisé tuñu ko ci seen dundin kenn mokkalatul dara kenn ku ne daal seetaan ngay def xam nga seetaan amul benn risque ah yàlla bu mu doon nag loo xam ne sax distraction la série bu ne nga ne seetaan naa ko nga noo lii day ubbi xel du ubbi xel da koy tëj Seydi Hadj may nee na xanaa xamoo ne jàng ñaari lettre ba mokkal ko ñaari lettre ba mokkal ko moo gën nga déglu tonu tonu tonu livre tonu livre ñun nag defe naa léegi ci déglu bi rek lañ nekk wala seetaan sax faf lépp loo waroon a jàng fexe nañ ba def ko film nga ne non boo ko seetaanee ci nga koy gën a maîtriser mais boo ko maîtriser taxul nga mokkal ko xam nga seetaan seetaan film yonent Yàlla Yuusuf taxul nga mokkal saar bi ah saar bi moom da koy jàggi Yuusuf nag moom film bi mën nga ko seetaan si giiru dund ba fu mu toll mën ngaa xam ne nangama ci topp waaye mokkal saar bi nag loolu lañ la sant moo tax si xaj may ne wa inna xifza taalibin naka mokkalub étudiant bi wala élève bi wala ndongo daara yi ndongo daara xarfay ni ñaari lettre rek afdalu moo gën min samaa'ihi ci mok dégg gu muy dégg waq rey ni ñaari sëfu gëléem ah neex naa gëm conférence yi ngay dem ci sa dund yëpp ak gàmm yi nga fanaan yëpp bu fekkoon daara ja nga toog bis bu jot nga mokkal benn page ci Coran bi heure bi demoo ah waaye conférence bu ne yaa nga fa gàmm gu ne nga ne non foofu moo daara la effectivement daara la waaye xam nga fooy mujje waa ji lu mu bëgg a wax sax yow di nga comprendre lan lan moo ci tegu ndax yow déglu ngaa déglu ba sonn mais taxul yow nag nga man ka wax yow hmm? parce que mokkaloo kon mokkal ñaari lettre moo gën déglu tonu euh, son wa fahmuhu bi nga jàngee itam ba mokkal ko nga wa fahmuhu nga comprendre xarfay ni ñaari araf qul neel afdalu moo gën itam min xifdin ci mokkal li waq rey ni ci ñaari sëfu gëléem bilaa xulfin zukkin kon dañ lay inciter à ce que nga nga mémoriser li ngay jàng mais boo ko mémoriser ba pare nga comprendre ko da ngay gis nit ki bu toogee ci mbooloo di wax lu mu mokkal di wax lu mu comprendre mën na ci def temps boo xam ne yow dalay sax mujj yëm parce que li muy wax mu ngi ci dëndam te moom la imam Shafi'i waxoon ne ilmi ma'i xaysuma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu laa jawfu sunduqi in kuntu fi lbayti kaana alilmu fihi ma'i aw kaan aw kuntu fi suuqi kaana alilmu fi suuqi imam Shafii dafa wax ne yéen borom xam-xam yi ay bibliothèque ngeen di ut def denc ci seen xam-xam man nag ci sama dënn laa denc sama xam-xam moo tax bu ma nekkee marché ba teewul may imam Shafii bu ma nekkee sama biir kër itam teewul may imam Shafii waaye nit koo xam ne ci mbooloo luñ la laaj nga ne bàyyil ma ba ma dellu téere yi moo lay wan ne yow da nga yore ay téere waaye amoo xam-xam yore ay téere nag ak am xam-xam du benn ndax xam-xam bi moom déplacement boo def rek mu ngi mel ni ki nekk maçon ki xës nekk maçon qualifié fu mu mën a dem ci àdduna bi rek maçon la hmm? buñ ko joxee chantier doy na sëkk mu indil ma ay outils rek wala mu utali ko boppam commencé liggéey waaye yow boo xamee ne sa diine jëpp wala sa xam-xam bi yëpp ay téere nga teg rek sa néeg luñ la laaj nga ne xaaral ma dellu ci téere yi yow boroomi téere nga mais doo boroom xam-xam wala tuhaawin bul doyadal yaa axi bil mi ci compréhension gis nga lépp loo xam ne nii mokkal nga ko bul doya dal nag toogaat ñu firil la ko ndax wadut tahaawuni képp ku doyadal compréhension bihi fi dëmmi dinañ ko ŋàññi ji bés ndax di nga am bés nga toog ci mbooloo ne da ngay leeral loo xam ne leerul ci yow gàcce mooy am hmm? nee nañ sëñ daara bi dafay jàngal taalibeem mm, di ko firil euh, xale bi di ko déglu ba mu àggal mu ne ko ah, papa de man comprendre ma li ngay wax mu jaaraat ci mu ne ko non nii la nii la nii la nii la xale bi toowaat ab diir ne ko ah góor gi de man comprendre ma man de xaw ma li ngay wax paa bi defaat ko ñetteelu yoon mu ne ko daal man xaw ma li ngay wax euh, sëriñ bi nag téye ci loxo bi ne ko doo ko mën a xam mu ne ah, mu ne ndax man mi la koy jàngal ba tey déggaguma doo ko mën a comprendre ndax man comprendre guma ko waaye xam nga li metti na yow comprendre oo te noppi woo te loolu sama classe gi yëpp ñun ñëpp daf ñuy dal dangay ngay yegg ci dara doo ko xam mais doo noppi ndax sag eluñ ci musal Euh, maalam yakun mujtahidan mu'taada dalika laysa yaxtawil muraada lu dul nag koo xam ne maanaam moom dafay taawil maanaam boroom xam-xam boo xam mufti la yem ci benn texte texte bi peut-être am na ay version yu bari mais moom mu indi dégg-déggu boppam maanaam indi esprit moom bi mu amee ci texte bi kooku kenn du wax ne dafay wax lu mu xamul déedéet mais day mujtahid la maanaam day farlu surtout koo xam ne dëkk bi mu ne xëy na bokk na ci ñafa raw xëy na lu mu ne xamu ko ba mu jeex nit ñi mën nañ jaaxle kon indi ci ay dégg-déggam kooku kenn du ko tere moo tax mu ne maalam yëkkun loolu mu bañ a nekk mujtahidan di mujtahid mu'tada bu ñu min ci moom daalika yaxtawi laysa yaxtawi muraada nga xam ne dafay def ijtihaad te xëy na texte bi du woon loolu waaye yonent bi nee kook day am yiw yow mi jàng nag ba pare jël nga leçon bi xëy na mokkal euh, comprendre nga ko jàng ko ba mokkal ko léegi nag bul dem rek tëju xam loolu toog ndax dañ wax ne bokk na ci li gën a yokk xam-xam di la gën a may culture général nga koy faral di waxtaane di ci def débat débat d'idée moo tax mu ne laa budda mënta ñàkk li taalib yi ci ku jàng wala étudiant bi min muzaakara di defaat nag euh, ay muraajaa ma al mutaaraxata ak di jamante wal munazara ak di def munazara te mooy toog ak sa mbokkum maanaam ñu organiser ay séance de compétition ñu ne classe bi ñoom ñooy compétir ak bii yu joxoon leen leçon yoo xam ne nii question yañ ca génne xëy na jàngale nañ ko ci année scolaire bi euh, yow mi fekkee yow mi ñu yow mi compétirul sax xam nga rappel lay doon ci yow hmm? de même que lii ñuy tudde concours lii ñuy tudde ay exercice et cetera yooyu dafay tax xam-xam sax ci yow moo tax Serigne Cheikh Tidiane si nee na boo jàngee ba pare xam-xam bi nga jàng demal nga waxtaane ko parce que fekk yaa ngi koy waxtaane rek def lay yokko yow plus de compréhension ci li nga jàngoon mi mel ni ki jàng téeréem ba pare après dem benn daayira di ko waxtaan xam nga moom ak nu mu mën a mel moo tane ñi ñi koy déglu Hmm? léegi dana jëf la tout ba ut éloquence assez pour mën a faire comprendre les autres li mu bëgg a jàngal loolu est-ce que dina yem ak ki mu jëlandool bind te kooku jotu ko partager quiconque hmm? déedéet moo tax kii nii nga xam ne mooy partager li mu jotoon a jàng effectivement mooy gën a mokkal kii nga xam ne nii ba mu ko jàngee xëy na la ko teg fële euh, bu yàggee da koy fàtte moo tax mu ne wazaka nag bil insaafi loolu nag na ko def avec mesure ndax jàng tey dem ne da ngay firi tey def ko avec mesure yem fi nga war a yem wëtta ëmmu nga def ko itam avec méditation su mëtta ënnii après nga ndànku ma a tësal zuli tabarakallahu su mëtta ënnii ma a tësal nga nga tey ci li ngay li ngay def maanaam munazara bi lay wax bu ñuy def compétition ñu ne classe tel ak classe tel ñooy compétir xam nga compétition bu mujjee ci xeex jaa dootul doonatul jàng de scrabble la ñuy def scrabble bi nga mujjee nga xam ne yow gañe la nga yàq carte yi waaye ne boo ko laalatee ngeen commencé xeex xam nga ne loolu dugatul ci cadre jàng mais mu ngi dugg ci cadre euh, noonante te loolu yàlla tere nañ ko euh, dem dem rajo wala télé ñuy organiser fa benn débat ñu ne yéen yéenay kuréel sangam position tel ngeen am yéen yéenay kuréel sangam position tel ngeen am léegi nañ waxtaan pour dëgg a génne loolu bu mu jëccee jur xeex xeex comme ni mu xawee léegi Seydi Hajj Maalik nee na jaadootul kon tësalsul bu fa amee rek euh, daanaka séisme la la gën a nuru doona doonatul temple du savoir mais pécc xoo lay doon yàlla na yàlla fayal ñu sëriñ bi ci bi jaay Seydou Wujud sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu